voilà muy noona nee naa leen de retour man laa bëggee ba war a ànd ak étudiants yi ak élèves yi ñu ñëwati naa nanga fii commencé université Cheikh Anta Diop léegi na tey nag ba tey ñu bi léegi ma xool ba xam étudiant Cheikh Anta Diop ba tey ñoom ñu ngi këru euh, question oui ou non léegi su baaxee Ndeya ah, danga may topp ma dugg si biir ma dégante ak eh, eh, eh, étudiants yi daa leen question kay tàggoo la question tàggoo la question tàggoo la question ah, voilà tout tur bi Mia euh, Mia ban département moom nga nekk jànguma fii de. ah nekkoo étudiante fii. déedéet jigéen soor laa jàng. yow kon loo fi liwut ah étudiant fee nga nekk université bu bu bu Ziguinchor nga nga nekk. kon yi voilà ça fait l'occasion di di yéen waa Ziguinchor yéen ñi ñi nga xam da ma daan woo pour ma ñëw foofu te am naa te ki nga xam ne moo leen fi teewal kon jërëjëf muy ñëw muy ñëw Ami ah, ah jàpp ma dem Ziguinchor voilà mu ñëw léegi nii ah dama bëgg nga continuer ma le verre

yow macha allah mais yëg nga ne yow yow jël kilo li sëgg dem sëgg kaw ba suuf mais mais mais yëg nga ne sëgg da ah pardon yëg nga ne da ngaa sëgg oui oui je sais en plus tu es belle tu es ravissante bàyyi tooñ xoolal caméra bi xoolal caméra bi mais oui ba ba li nga nekk ban département moom nga nekk maa ngi si ok léegi xoolal dama bëgg nga conjuguer ma la benn mot voir à la troisième personne du singulier au euh, subjonctif passé. Oh my god! Oh my god! Mais pleuvoir, hein, moom il pleut là. à la troisième personne du subjonctif moom. Hmm. à la troisième personne du singulier singulier. Eh, eh, Да, да. Jamaica dat, no, is eigenlijk um, besef. No, damay bay ma jum. Wa mi essayal. Mi dans la vie, il faut savoir essayer. Euh, non, c'est pas ça. Ak yow, ak yow ni nga intellectuel du essayer ça. Da soo na si. Uh. à la troisième personne du sixième, nga ma voir. mantane a tout tur bi tu Anna a Anna yow y'a yow di di y'a y'a d'accord am na naa wax te ah ana ban département moo nga nekk moo nga nekk. Euh, maa ngi département anglais licence 2. yow ana yow eh, intellectuel nga de léegi xam nga bëgg nga continuer ma le verbe mu pleuvoir à la troisième personne du singulier au subjonctif

il aurait. il aurait. il aurait plus plus il aurait. il aurait. tur bi. Janké. ah Janké. ok ban li nekk ban département nga nekk. si un juridique. ok ma xool dama bëgg nga conjuguer ma le verbe de à la troisième personne du singulier au euh, subjonctif passé victoire pleuvoir verbe pleuvoir à ah. pleuvoir à la troisième personne du singulier au troisième personne du singulier waaw au subjonctif passé non waxoo on subjonctif passé wóor na yàlla wallaahi loolu laa woon verbe pleuvoir troisième personne du singulier au présent. ah au. xaaral coupé coupé nga recommencé waat. ah na coupé ma recommencé waat. ah loolu nga am amul hmm? coupé amul loolu. non coupé nga recommencé waat. sa question. verbe pleuvoir. ah. à la troisième personne du singulier. Ce que j'arrive pas à comprendre, moi, comment tu peux conjuguer qui verbe pleuvoir, mhm. troisième personne du singulier mhm. au subjonctif passé. Mm -hmm. Question, j'arrive pas à le comprendre. Mais mais mais mais mais mais moi, madame, question. Moi, verbe pleuvoir, mon ouais. conjugué. À qui, au troisième personne du singulier.

tur bi. am daal Sarr. i macha allah ban département la la nga nekk moom nga nekk. Fasek. ok Fasek. Fasek fii nekk ila la nekk. waaw faculté des sciences économie et gestion. oh d' accord léegi xam nga bëgg ah nga continué ma léegi yow yow yow yow yow yow yow D'accord. Les gens vont ont bëgg le continuer pour le voir à la troisième personne du singulier au subjonctif passé. oui, yow loolu saf Oui, mais, waaw eh, eh, mais le Pour le voir, je peux je à la troisième personne du singulier. troisième personne. troisième personne du il. Il est avec S, voilà. Non, Il Il pleuve. Il pleuve. Il pleuve. Mantané. Tur Bintu lii. mais mais Bintu yéen nga am classe. xam naa ko kay. yéen nga ndeysaan jom ki nag mooy princesse après bintu ba ni nga nekk ban nga nekk anglais ok ah, bintu dama bëgg nga continuer man le verbe vouloir voir à la troisième personne du oh, singulier au subjonctif passé subjonctif passé fàtte naa ko nag vraiment wala da ngay essayer rek. qu'ils mantane. damaa ah, bëgg ah ok. nañ jàpp kon fa fa fàtte na ko. tur département mu ni nga nekk moom moom nga nekk. droit. ah d' accord ah, Aïcha dama bëgg nga conjuguer ma le verbe promouvoir à la troisième personne du singulier au subjonctif passé. <laughs> no no no cái cái cái cái cái u aja levez le pleuvoir à la troisième personne du singulier il pleut voilà hein? il pleut déguma il pleut mantane Why you do that? Why you do that?